xam moom laay tëjee muy wàllum làmb ndax jamono ji dégg nañ làmb ji tijjiwaat na mbër yi war na noo mën a jógaat mhm. siñ seex ndax dina yëngu ci wàllum làmb waa dama ciy yëngu ci ñaanal ñaanal ñi tey yëngu mhm. ndax euh, li may gis ni personnel maanaam dama bokk ci ñoo xam ne bu ñàkk mënoon a wax ci média amoon dama koy def mhm. ndax euh, jamono dama am ay taalibe euh, parce parfois nga wax nga wax lu la yàlla wan hmm. waaye dégg ci loo ci war dégg hmm. waaye du mu métti ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ma gën a foor hmm. ay baayam daan nañ ko tiim du ko saaga mu ko daan muñ muñ goog ci lay yëkkati ko sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu mbooleem ñi ko noonoo woon ba mu ñib see na ne seexal defu leen noonu xalifa ñes mii di sama maam mbooleem koo xam ne nii taxawoon na pour penc mi wala pour moom wala pour diine l'islam daanu ba mu xeexee ba diine ci taxaw daf laa ooña la kaa ñu kaa ñu kaa ñu réparé diine ci mhm. waaye oowula ci xeex mhm. alaaji Malik kazalika mhm. bukkunta kazalika keneen ak keneen laa laayee ni kazalika mais pour tënk loolu pour wax la ne la maanaam lambu dañ ciy yëngu ci ci anam bu nekk am na ñun ciy ñaanal waaye dafa am loo xam ne inna allaha yaalamu xayba samawati wal ardi la mu ngi bàyyeekoo ci xay bu mooy lu ñëwagul yàlla moo ko xam yàlla moo ne man maa xam li nekk ci diggante asamaan ak suuf ku ma soob xamal comme ma soobul ma la ko xamal. ñu wax ci ñi nga xam ne waxoon naa ko ci bu yàggul ne gis naa ci ñoom actuellement. xam nga gis làmb ma wax la benn affaire dafa dafay baaxoo. gis avant gis bu jege gis après. làmb ñett yi la. parce que làmb mbir jinne la. te yëg nga ne jinne dafay jàmb nit dafay wor. waaw jinne mën na laa solu ngay seetal nit ki. loolu dégg ñu naan diw ak mën a seet ak mën a nangam mu mën a seet lool. waaye parfois yëf yi da jinne yi yi dañ koy jàmb complètement mm. du gisati léegi di wax soo nafsu ba kanam mm. lépp lu mu waxat duñ ko gisati mm. parce que nafsum lay waxe jinne yi indil tuñ ko loolu li koy waral mooy ñàkk ko ñàkk a génneel jinne yi seeni sarax mm-hmm. ñàkk leen defal xaalis bi ñëw muy neex lañ day lekk yaag sa njaboot nangam nangam nangam ñu jàmblo complètement loo waxat nangam mm-hmm. côté boobu laay waxee benn côté bi mm-hmm. benn côté bi si des may wax ci wàllu li ñëwagul yàlla daf ñu ciy woon ñu ci sant yàlla parce que bokk naa ci sëriñ njëkk a toog ne Modou Lo dina daan Eumeu Sène wax naa ko ci site yu uute euh, ay Sénégal deux cent vingt et un waxoon naa ko bu yàgg ci Cheikh ak yeneen i site loolu yàgg na euh, fa tabarakallahu ba bëreegul ak Balla Gaye ñu ne moom ñu ne moom Modou Lo dañ dégg nañ ci weewu béy ñaari avance la jël bala Gaye ak Eumeu Sène may leen Balla Gaye bi de leeruma te yaakaar naa ne du ci jëlee ndam waaye Modou Lo dina jël tuwaa bi te ci Eumeu Sène la koy jëlee loolu bi ngeen demee vérifier da ngeen ko fekk da ngeen ko gis macha nag dañoo am ay taalibe yoo xam ne dañoo ñaan te yàlla tax hmm. nañu sëñ bi ñu ngi lay ñaan yow bokku yenn sëriñ caaxaan yi hmm. làmb loo ciy waxati hmm. buñ la ciy laajati na nekk loo xam ne buñ la ko laajee muy loo xam ne maanaam analyse lay doon ci li nga ci ci ci ci maanaam ci noo gisee ak li nga gis taxawaayu mbër yi mbër yi jekk am ku ne am na ci droit ne mbër mi moo jekk mbër mi moo jekk mbër mi moo mais man waxee mu sama naf si bakkan dama wax ne actuellement Balla Gaye Mm. mais jóg ci boppam bu baax. Mm. waaw Bombardier moo ko gën a jekk actuellement. Mm. mais après wala avant làmb Balla mën naa jekk mën naa jekk quoi. ndax Modou ba muy jël Balla moo jekkoon Balla. waaw waaye dañ koo mepp li wax mepp dañoo dañoo yaafus bàyyandiku ba mu ñemee jël. Mm-hmm. ba ñemee jël combat bi ba lekk avance ñu gaw ñu gaw yëfi tëj ko. Mm-hmm. moytu a génn. Mm-hmm. kaza wa kaza wa kaza. Modou Lo Ama Baldé. Euh, Modou Lo Ama nag. gis naa ci sax boo repee combat bu soof waaw bu fekkee lañ ma jot a woon changé wul hmm. combat bu soof mooy nit ñi di xaar ci ay dóorante di xaar ci ay nangam di xaar ci ay nangam hmm. mu ñëw mujjee ci ñàkk fayda hmm. ñàkk fayda mooy jaxasoo ñeent ab ni ngeen koy wax kii waa quatre xaw ma am ci wala yooyu ñàkk fayda yooyu mun na ci am euh, waaye nag euh, nit ñi ñu ngi xeeb lu am importance mun na nekk combat mystique waaw na nekk combat mystique waaye ah ku ci supporter bu ci oyof bopp. Hmm. bul dem bu bu bul bul yëngatu ndax eh, su ci état deful wàllam. Hmm. fii laa koy waxee combat bu nara a bëri hmm, deret la bu nar a musiba. mi misik gi da cee bëri daal. musiba maam bu nar a bëri nu koy wax wàllum xeex ak yooyu. ak eh, tojantey bopp ak rayante ak yooyu boobu liñ ñu si wan a Lac de Guiers 2 Eumeu la dëgg de Eumeu Sène waxoon naa ko nee na actuellement li ma jot a gisaale nii. Hmm. Eumeu Sène moo jekku. Eumeu Sène li ma jot a gisaale nii moo nekk moo moo nekk ci voie wu voie wu hmm. ba pare nag toog ci loo xam ne euh, dañ koy dañ koy dañ koy ooyee ndëdink ndëdink mooy maam digle loo xam ne dañ na la wax da koy yàq. Hmm. moomeewul wax. ci loolu la toogagum. bu ñu demee ba mu jege nag bi ngeen ñu bi ngeen ñu si laajee mhm. mën nañoo waaye tegtale wut na dafay daan nag waaye actuellement moo moo moom moomagum mhm. waaw moo àppoogum fan actuellement mhm. Papa Sow Siteu moom ma ci dara Papa Sow Siteu moom gisagoo ci dara non mënuñu ma ci dara euh, euh, li waral danaa leeral li waral sax euh, may may may may gis ci yii di wax aw ma jotu làmb di toog di wax mais dafay dafay fekk ne dafa am ñoo xam ni dañuy sama niti bopp. Mhm. bokk ci benn camp bi. Mhm. avant ñu jël combat ñu ñëw laaj ma. Mhm. ma ne leen baax na jël leen wala baaxul bàyyi leen. maanaam mooy li ñuy wax listixaara fanaanoo. loolu loolu loolu sax ci laay ci laa ci te ñi may lay wax nii ñëpp jot naa ko jot nañ ma koo xooloo ma xool. ña kii may leen jël leen baax na. waaw moo tax ma wax moo moo tax ma wax bismillah.